ñu gis seex Amar euh, ci nguuru Abdoulaye Wade déggoo gi mu amoon ak moom ci liggéey bi ak yëpp mais ñu gis ne nguur bi mu nekk euh, dafa mel ni loolu amul gisatuñ Cheikh Amar ci yu bari ci yim daan def surtout ci wàllu mbay mi wax nañ ko sànq ak yeneen yu bari da nga ñàkk a nguur gi fi nekk wala lan la. non du ñàkk déggoo nguur gi euh, chance bi ma amoon. ci Abdoulaye Wade. Mm-hmm. c'est-à-dire Abdoulaye Wade su ma boole woon ak benn ministre ne ko kii dama bëgg mu def lii parce que mën na ko su ma demee sooy kàll-kàll yi damay dellu wax ko ko ne ko il dama tàyyi ci ñoom lu mais parce que nit ki bu la bëggul doo ko bëgg ma man mais le ministre de l'agriculture et le ministre de kii euh, kii yoone mii te bu ma waxoon nañ jotee kenn kii dëkk bi tëj. te na ma xaanaa dinaa ko wax. non du ma ko wax fii kooku benn yoon laa koy wax. dafa am fu ngeen jaar yéen ñaar. waaw <laughs> donc euh, ñu jàpp ni. quant euh, président on n'a pas de problème. parce que bi mu fi nekkee itam. ñu ngi doon liggéey. bon bi ma feebaree nag ba léegi. liggéeyatuñ. bi nga feebaree ndax seetsi na la wala moom woo la nemmeeku la. woo na ma. Mhm. woo na ma plusieurs fois man dem naa fa waaw seet naa ko. <coughs> excusez problème mooy réew mi gis nga fii lépp day jax mhm. lépp day jax te ku yéene na nga yéene nit ñi jàmm loolu moo am solo mhm. ñun ñi ñëpp yal na yàgg. yàlla na yéex mais dañuy suul dañuy dee te ku dee yow rek ak sa bàmmeel donc man àdduna bi xaw ma lu fi jar di bañ nit complexe d'une façon ah des étrangers yi teg ci kaw nit ñi ay mais dañ lay tourner sax ne la diw ministre la mais tu te poses des questions comment on peut prendre ce, ce gars ministre mm-hmm. Donc, euh, c'est des problèmes comme ça qu'on a. Là. Au début, ça allait bien. Mais là, là, depuis reprise bi les sénégalais daal dañu wane benn genre soxorte boo xam ne euh, daf ma xaw jaaxal daal. da nga jàpp ne Cheikh Amar li mu man dan ko fiy bàyyi di indi ñeneen di leen fi teg bañ ko ko mais loolu la ñuy def loolu la def. toog dañu foog ni un homme d'affaires ça se crée pas un homme d'affaires tu te crées toi-même et on t'aide mais tu peux pas ñëw rek tey kenn kuy jaay dàll nga ne ko wéy yow laa bëgg nga def tey engrais bi c'est pas possible xamu ko ku nekk ak sa ak sa ah? amul monopole mais xam nga tey yow journaliste nga ah xam man booy wax man naa la wax ban engrais mooy dem ci ceeb DAP lu tudd. dinaa la wax ban engrais mooy dem si dugub. dinaa la wax ban engrais mooy dem si euh, gerte. ban engrais mooy dem si maïs. ban engrais mooy dem si ñebbe. ak euh, horticulture. loolu il faut nga xam ko. c'est le minimum. mais ñëw rek jox la quota ne la demal jëndi engrais. nga dem indi fi loo xam ni gis ngeen problème yi ngi fi am. est-ce que du est-ce que du monsieur Amar nga baal ma dafay wane rek li ñu bari di xalaat ni jàpp ni souvent ñu bari ci homme d'affaires yi en tout cas ci pays africains yi dañ leen di utiliser wala état yi dañ leen di utiliser souvent souvent pour mën a blanchir li nga xam mooy mooy seen xaalis par exemple est-ce que du kàddu yi nga yëkkati en tant que homme d'affaires bu mag aussi loolu lay wane. Euh, blanchir de quoi. comme état bi par exemple. c'est-à-dire ah, man de état du blanchir sama man moom kenn du def loolu si man. est-ce que ko ñàkk nangu moo tax kon ñu wut ñeneen. mais fii da nga foog ne dañuy blanchir xaalis ñuy blanchir xaalis fii mooy ñi ndëkk bitim réew yor fi ay société mm-hmm. loolu mooy blanchiment. mais ñun en tant que sénégalais. homme d'affaires aussi le fait que nga kàddu ni jàpp nga ni homme d'affaires kenn ko créer aussi loolu lan la signifier pour yow. mais homme d'affaires kenn du parce que parce que xam lu tax mm-hmm. man li ma gis. euh, ces quelques ministres-là, il a quelques ministres qui ne se sentent pas à l'aise et qui disent qu'il leur reste un an maximum, on bouffe le maximum et on, on s'en va. C'est ça le problème. C'est ça il faut ñu wax dëgg gi ñooñu ñooy jéem a créer ay hommes d'affaires ba yàqal nit mbay mi alors que mbay du caaxaan. da nga koy il faut être ingénieur agronome wala nga kii même boo ko nekkul sax nga nekk nit koy bay xam nga jox ko ko mën daal moi c'est ce que je pense. bon actuellement no mais man naa ibi sama usine bopp. kooku moom yoon état nekku si. monsieur Amar ñu bari jàpp ni depuis après alternance ba léegi te dafa noyé quand même yaa ngi dund ay tolof tolof parce que non seulement amatoo li nga xam ne mooy ay marché yu demee noonu ndax loolu vraiment mën nga ñu ci xaw a gën a leeralal tuuti. xam nga nag nan lañ xam. man état man maay wut samay lii ñu bopp di liggéey état daf may fekk may liggéey mu subventionné ma. di ëpp sama liggéey. Hmm. te lu tax mooy subventionné subventionné wu man ay baykatam lay subventionné ak yeneen euh, ay yeneen secteurs mais man maa liggéeyal sama bopp ba toll fii waaw da fekk nag gënoon naa fës temps wàdd parce que si laa gënoon nekk ndaw suñ gisee un jeune ki se débrouille comme ça lu nekk di nga ko dégg dañ koy defal lii sëñ bee boole maa ngi moom alors que tout ça c'est faux. alors manque de confiance bi ñu nemmeeku ak gouvernement bu nga xamee ne moo fi nekk jamono ji lan nga jàpp ni moo ko moo ko waral ba xëy na collaboration bi nga soxla woon pour am ko ak ñoom amoo ko. xam man ce qui me fait mal. du du collaborer ak ñoom ou pas. ce que je veux man bu ñuy dimbale nañu ut ku ñu dimbale mais li ma moom nañ ma ko bàyyi xam nga loolu yomb na. mais mënoo ne doo dimbali nit ki ba pare bëgg jël ay bagages am loolu dama si teg sama bakkan c'est le problème que j'ai avec eux pas tous nag ma je veux dire quelques personnes rek quoi yoo xamante ni euh, ay ministère de tutelle la ñu c'est tout mais léegi ñu jógee fi ah. lan moo waral conflit bi wala lan nga ñu mën a leeral la ci conflit bi nga jàpp ni am na sa diggante ak conflit bi ñaar ñoo si gën a rëy benn bi c'était le ministre de l'agriculture beneen bi c'était le ministre des mines Oumar Sarr ak ñu nekk fii si dëkk bi sa sàcc sama xaalis ba tey kenn wow leen c'est pas normal wax nañu bind nañ journaux tout tout tout je peux vous montrer les papiers ils m'ont volé de l'argent est-ce que porté porté plainte ngeen lire que ci journaux yeeg fu ne porté plainte moi je veux que justice soit rendue c'est tout lu ma am nu delloo ma sama yëpp ma continuer liggéey je suis pas mort je suis vivant ça veut dire que su ma deewoon daal sama alal day saay day seey quoi sama doom yi duñu am dara quoi c'est ça qui me fait mal c'était c'était même pas l'objet de parler tey affaire u bi lañ doon mais c'est une occasion vous m'avez posé la question il faut ma tontu leen quoi mais lii ñuy dawal nii euh, moom c'est pas bon. d'accord alors woon na def tour quand ci réseaux sociaux yi ñu gisoon la benn image boo xam ne Saraka délégué Amar moo ko moo ko filmé woon bu ma juumul sa digganteeg Wally ngay wax banaan xam nga ni xale la mais ku am kóllëre la mën nga dikk man un peu quand ci li la euh, li la motivé woon ba kàddu yooyu nga yëkkati ko jëmale ko ci wàll. woon may wax lan. ngay seede ci moom xam nga ni Wally xale la mais borom kóllëre la ku am kóllëre. Mm. waaw bu baax la yaru na xam ni muy def et la daal. waaw waaye daal boo ko defalee dara. bu bu munul dem danañ ko jéem a delloo. waaw. te day jàppale waate day kii bëri na ci ay morom nag mais ko moom ngeen mu tuddal. Mm-hmm. moom laa mën a wax ci moom quoi. très bien sa social li nga doon def ñi ko gënoon di seede mooy artistes yi ñu bari aussi sama benn confrère mu ngi koy laaj ci tout à l'heure ñu bari jàpp ni vraiment xëy na dollewuñu comme ni ñu ko waxee ci olof naar bi xoromam sa diggante ak artistes yi ba néewaan na kuy génne album te tudd la ci jamono ji mu mel ni tamit dafa wàññeeku ñu bari di laaj lu ko waral ndax am na loo ñu si mën a leeral incha allah. man de man gisuma loolu de mais man sam bopp. Mm. loolu laay ñaan yàlla. ñu wàññi woy man man daal ku ma am woyal ma sama waa ji kii moo jara woy mais man ñu woy ma amul benn sens daf may siiwloo rek te eh, am mais nag mënu ma am naa ay xarit bu mel ni Youssou Ndour grand la dañ bokk di liggéey donc kooku pour mu woy ma c'est un plaisir keneen ak keneen ki ne la noonu mais gars yi daal am na ñu baax man daal que je vous demande ah mooy lii may gis ni ci dëkk bi nañ ko régler d'accord monsieur Amar fi may jeexalee man xamoon nañu si diggante ak Serigne Salif Mbacké ba ki nga gënoon a fonk ba ñu la jege xam nañ ko mooy sa doom ji fi jóge ñuy naan yàlla teralee ko aljanna Serigne Salif waaw gannaaw bi nga xamee ni lépp def nga ko ba tuddee ko ki nga xam ni moo gënoon a fort ci yow mhm. suñu borom jël ko mu nekk mbetteel mu nekk loo xam ne vraiment ñi la xam ñëpp xam nañu ni vraiment manquement la pour yow mhm. lan nga ñu mën a wax ci vide boobu nga xam ni sa mbëggeel ci Serigne Salif rek la doon wane suñu borom teggi ko waaw loolu de xam nga yàlla moo ñëw rek. yàlla moo ñëw te yàlla moom loo bëgg bëgg sa doom moo la ko gën bëgg. waaw bi muy am tam fekk ma fa. Mm, mais xam naan ne daal moom yàlla may na ko. parce que dem na te sonnul. tubaab yi xoole yi wax ju lañu wax. dama dafa waroon dem. ba léegi kenn xamul lan moo tax mu dem. gisuñu dara donc loolu moom. dañ si neexul mais ki ko indi woon moo ko jëlaat rek te toobu daal dañ koy fekkiwaat man moom sama jaan wàcc na am naa taaw tudd naa ko suma sëriñ moo solo ci wàllu politique nu laaj rek bala ñuy tëj noo gisee ku mel ni usmaan Sonko ak révélation bi mu indi du mu révélé noonu ci taxawaayam ci dëkk bi ni ko ndaw ñi bëggee ni ko nit ñi toppee <laughs> sa gis-gis ci moom <laughs> c'est ah yéen ah <laughs> booba ñu waaye yéen da ngeen bëgg man ñu jël si moom wala la. <laughs> dañuy laaj rek sa xalaat sa gis-gis rek. non non non non gis nga nag il faut prendre des choses pas difficiles. Mm. Ousmane Sonko c'est un bon temps c'est un vrai Sénégalais. Mm. Macky Sall c'est ñun ñëpp ay sénégalais lañ pour l'instant maa ngi dégg ñii coow. ñii di neexal président ñii di wax ay troisième mandat lii lii mais est-ce que moom wax na ni day dem troisième mandat ñii wax waxu troisième mandat est-ce que xam nañ lan moo nekk ci constitution bi. Hmm. moom ah. waaw mais est-ce que yow liir nga constitution bi li ñu wax. constitution bi est-ce que sept ans boobu ñu def mais pas bi bi muy dem cinq la fi bàyyi non sept boobu ñu def est-ce que bokk na si mandat yi bi mu njëkk a def waaw ah. loolu de moo xaw a lënt ci xel yi waa loolu nag ngeen war a dem di jënti yéen gëstukat yi ba pare nekk nag yee eh, lii ci la bokk amoo droit bokk bu fekkee ni ni ñu tënk constitution bi dafa war bokk kenn mënu tere mu dem day dem léegi nag que le rëbb ah. la dañ ko bokkal nga xam ne mën nañ koo faagaal da leen tëj ci kaso bi la leen jëme ah ñooñu kon dafa fekk ñu ñàkk fayda rek yow tam yooyu dañuy wax rek ah sëñ bi ku deful dara kenn du la tëj li ma jàpp man ku deful dara kenn du la tëj man le problème de Ousmane Sonko vraiment xaw ma mm-hmm. mais lu tax ba tey tëjuguñ ko y a un problème wala. amoon nañ mbégte ak kontaante jàkkaarloo ak yow ñu bàyyi la nga tàggoo ak mbokk yi lay seetaan. waaw. sargal bi waaw waaw ñun kooku moom xale bu baax la dañ bokk li ñu bokk ñoo ko bokk. muy sëriñ bi. donc euh, sama xol sedd na si lool sax. ndax dégg naa ko ni mu doon woyee sëñ bi. ci xol la ko jële daal waaw di leen nuyu yéen di leen nuyuwaat laa wax sax et di leen sant voilà donc euh, ak tam di yi en général su daan am euh, ba ci xel comme bii maa ngi rendre hommage sama grande sœur euh, sama doom boobu ngeen di wax Sëñ Saliou qui m'assiste beaucoup voilà ak Mbaye Amar mu nga xam moo doon coordonné màggal geeg xel comme yeeg tout ça ñooñu ñëpp tey dem nañu. et euh, vraiment yéen itam ñu leen di ñaanal. li ngeen di def nii ngeen dem ba seen ay mbiru bopp. waaw ba pare presse bi gën a. gën a set quoi parce qu'on a besoin de ça. yéen waru leen toll fu ñu leen di wax nii. def leen lii arrêté leen lii. da ngeen war xam seen liggéey. informer bien informer juste mu jeex quoi di leen ñaanal nag euh, yàlla taxaw leen ku nekk fa nga yëngu di ñaanal aussi Sénégal parce que tam duñ toog ba léegi ñuy wax gaz génn na fi pétrole génn na fi am na phosphate am na or yooyu yëpp Senghor l'avait dit ba ñëw ba léegi découvrir ko commencé fi bëgg fi indi benn guerre c'est pas la peine c'est pas la peine. Wade, quand je lui parlais, il me disait, moi je préfère enterrer le pétrole que d'être en guerre. donc euh, mën nañ ko gérer ñun ñëpp nag am ci mu Sénégal yëpp sentir que sans problème mais fii moom benn nit rek mënu ko fi lekk. yi jëm coupe du monde bi xale yi. waaw waaw xale yi moom jàmbaar lañ surtout kii nañ ko ñaanal bu baax quoi ci tànk bi waaw. waaw xale yi moom mën nañ dem ci kanam yàlla baax na parce que nit ñu bëggale si coupe d'Afrique bi moom vraiment suñ góorgóorloo rek mën nañ fi indi coupe bi waaw maa leen di remercier